affaire gars yi naka mu. Ah, yaa ngi yërëm de nu mu demee nii. ah sa yoonu gabon bi mu joo yegg. wala prime bi booy jot ñu si am na nu mu demee nii gars yi bi gabon booy nooy nan de wala état da laa gën a tàng. waaw wala xaalis. da nga may déglu. bisimilah. man ba ma taalee sama deux roues dem gabon. Hmm. temps bu bëri jëluma ko. ba ñuy wax quatre heures du matin egg naa. bëccëg match bi match bi seetaan naa ko ba mu jeex. mais man lenn rek rek rek yenn gars yu ñu éviter ci télé bi. Salam cinq tirs toppul benn muy mel ni lëppaalëpp équipe bi daal saa waay xaw ma ban façon équipe la lii du équipe baaxul. non gars yi jaayante nañu nag. buy eh, eh, ma jaayante nañu de. Ah, bu ñoom bu ñuy lan rek moo desoon xanaa yëgaloo leen sa prime bi. Eh, bi nga leen waroon jox jour yi ba may dem laa déggante ak Aliou Cissé ma ne ko maa ngi hôtel. andil naa leen seen prime de match mu ngi nii. dañ ko waroon a fanaanoo nag. lu tax ñu ko non. ah teeloo yegg. yegg naa hmm. déggoo li ma la wax quatre heures du matin bi kon xam nga yegg naa. Ah. xam nga lu ma leen wax leer na xaalis bi ñoom laa ko yóbbuloon pour jox leen ko mais joxatuma leen ko parce que am lu ma metti ci match bi. lu la metti lu ma metti ci match bi. Hmm. ñun suñuy jour benn Aliou Cissé toog nañ ma benn instant heure match bi mu woo ma ne ma kan laay dugal ma na ko dugalal Henri Saivet. Hmm. Ah, waaw ma ne ko dugalal Henri Saivet boo ko dugalee dina lijjanti problème bi. mais Henri Saivet mu doon football xanaa Ismaïla Sarr kay ngay wax. non non Henri si boppam laa ko wax mu dugal te mu dugal coup franc bi keroog. Ah, yow match bi kon sa biir néeg la la fekk. non non seetaan naa ko man lo xam nga. mais Henri Saivet mu ngi doon football instant yooyu noonu. waaw man li ma lay wax. Ah. li lay wax xam naa ko. sama xaalis andiwaat naa ko. désormais désormais damay dem candidat pour président pour nekk dugub fédération Augustin Senghor daf ñuy xajal ko waa ma ñëw parce que sérieusement jiguñu boobu ba tey boobu ba tey saa waay ñun équipe bi mënul lii ñun demoon nañ ba am yaakaar. ren ku ma waxoon équipe nationale Sénégal. Hmm. man commencé woon naa jënd Grand Yoff yëpp maa leen jëndal ay drapeaux. mais sa yi nag xanaa bi ngay defar stade yi da nga fàtte loolu da nga fàtte sóoraale. yi ndekete waa Gabon dañoo indi benn saltige moo ko sulli ba pare stade bu Cameroun Sénégal joué foofu suulu ma fa woon loolu moo ñu gën a lor. mooy xanaa mooy bu pël Fuuta bi defar. waaw xam naa boobu la rek. boobu la rek man daal saa waay. Hmm. match bi moom am naa lu ma métti parce que moom boo ma yeewoon ne ma Sénégal du gagné. du ko gëm. ah mais booy gars yi jaayante nañu nag ah. sëñ bi loolu laay bañ a dégg lan lañ jaayante. jaayante nañu lan lañ jaayante. Sadio Mané yëpp ñu bay bëgg a dee yàq suñu match raté suñu penalty. non non non non moo koy xamul dara. non non gars yi moo ko gisee ko gisee rek ngeen di xam nga Sadio Mané du Sénégalais Casamance xoolal bopp bi rek. Hmm, maa ne. waaw ma yaakaar ne moom Casamance yooyu la bokk. waaw Casamance lu moom Casamance la. waaw waaw waaw. te ah. suñu góolu bi turquien la du sénégalais. muy mel ni le pal bal du topp benn bal. dañuy door fii bal mu aw ni ñu door fii mu aw ni Idrissa Gana Gueye bal bu mu jël yóbbu ko ci ginnaaw ñun dañoo dépassé football yooyu nañ joué. mais gars affaire bi sens ba dee de. Karambo gàcce ngaalaama. waaw lépp kenn du Karambo ji. waaw sëñ bi Kalidou Koulibaly gàcce ngaalaama. waaw waaw Koulibaly waaw 59 la def. waaw waaw sans blessé 59 tacle si benn match. waajee bal bu mu jël suyee ko ci ñoom ñëpp maag Aliou Cissé waxtaan ne nee naa nii bu leen sélectionné nee naa ko Sadio Mané bu ko woowaat soxlaatuñ ko non bul non bul tas. no non non non équipe bi non dama am dégg ba ba kii ah. ma maag Messi waxtaan nañ day def nationalité sénégalais. Ah. waaw balaa coupe du monde bi Messi. ah yaa koy lijjanti. maa lijjanti loolu garaawul Messi day nekk dama day def nationalité sénégalais. Chris ñu ngi waxtaan quoi pour mu def nationalité sénégalais ñoom maa ngi xool pour comme dañoo. wara dem coupe du monde bu ñuy dem coupe du monde ay ponkal la ñuy fekk bala ñoo dóor ay dóor yu métti ñoom ñëpp ñu xaar ñu bàyyi fa ak Diao Baldé Keita. tey sa waay la. lool la man dama sonu ci affaire bi xolal monin bi yep monin bi yep ngi nii ñoom laa ko yobul lool monin bi xolal monin bi yep ngi nii ñoom laa ko yobul lool pour jox len ko. mais bàyyi ma indi. mais est-ce que yéen nga len won monin bi. bien sûr man victoire la len wax ma jox len 1 milliard ngeen seddo ko ñom ñëpp bu ñu séddoo lii ku nekk day am 100 millions dirigeant médecin masseur ñëpp ñëpp même masseur bi day am cent millions ñoom ñëpp laa ko waxoon mais comme dem nañ foofu. mais man mi lay déglu nag ñaata laay am xanaa. yow man mi lay déglu. yow may déglu dafa métti de pas. Ah, mais yow mi may déglu kay doo am dara yow déglu li ma lay wax ni maa ngi lay yokk xam-xam pour en cas mm. boo toogee feneen ngay wax dara. non yow moom déglu la dafa métti quoi yow man damay jaayante pour di la déglu nii sax jaayante la. waaw xanaa yow man coupe d'Afrique bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ba mu jeex. nga may door ay affaire may encaissé. da nga wara sét dara sax man désormais nga faa léegi désormais bis ni ki tay man nekatuma sénégalais yow lan nga doon légui turquien la yow kay bo doonee turki sax ñun dañuy sant waaw man nekatuma sénégalais parce que sénégal kenn mënu ko défar xadim Ndiaye verser atena ko ko fa ku entraîneur Côte d'Ivoire yi ko doon nuyu mu door ko fa ñaari arrêt yo xamantene yow kay nar nga wara a doon waaw salaam Diallo dañoo mitan ñu ne ko salaam nan nga jàngatee football bi mu ne waaye bon salaamaaleykum maa ngi sant Serigne Saliou Mbacké lu ah. may wax ci match bi mooy suñu suñu suñu suñu replacement yi. Salam Diallo ay salaam lu ma xam ci replacement man damaa seetaan RTS rek. non yéeneem la wax rek. dafa wax yéeneem dafa wax yéeneem waaye ba mu ñëwee. man lu ma gën a salaam dafa wax yéeneem waa RTS nag foog ñu dàq seen waa jooju nekk foofu. xam ga doon ñu koy mm. ba ñu éviter salaam bu ñu waxoon

nañ ñu dimbale. mais dañuy supporter léegi Macky Sall wax naa ko dañuy génnee benn décret. désormais bu équipe nationale Sénégal di joué waat bu fi benn woykat génnee benn son. ndax seetlu waxal dëgg rek ba ñu kaaroo yàlla ba tey fa la ñuy yem. waaw mais léegi yow dama bëgg nga déglu ma ah. waaw. mais yow yaa ngi lib yëpp yëpp yëpp yëpp li nga xam ne moo yàqal équipe bi pour ñu gagné. waaw mais dama yaakaar ne yow fàtte limaale sa bopp. waaw man la. da nga fàtte limaale sa bopp. xanaa xam yow posan nga si Coupe d'Afrique bi nii. maanaam. maanaam. ah yaa ma gën a xam. ah déedéet wax wax xëy day sol tubay. posan nga si Coupe d'Afrique bi nii rek. waaw kon laaj nekkee posan. prime yi scooter bi. yow yaa ngi wax gars yi li ñuy way pour yàqal Coupe d'Afrique bi gars yi nii way salaam Diallo yow mais dangay wax si yow. wala sam benn grand sam benn grand frère. Hmm. mu ngi Corée du Sud Bakka Bakka. déglu non dama lay expliquer. ma woo téléphone. Bakka Jabaate. daf ma woo téléphone. Hmm. Hmm. duuru match bi ne fan nga nekk nii ma ko maa ngi Gabon xam nga moom fekk na ma Gabon sax fekk na ma Gabon quoi maak moom ñu toog ñu waxtaan man Gabon deewoon na. ok boo deewoon gars yi deewoon naa non yàlla man xam nga double kër laa am. <laughs> man loolu rek moo ma xaw a dimbale. mais deewoon naa ba pare. double cœur ngay doxee waaw double cœur laay doxee deewoon naa de xam nga après ma ne garaawul quoi comme li football la nañ ñibbisi ñu dàq leen jéem a jéem a defar leneen quoi. ah benn benn kër bi Gabon nga ko bàyyi. falaa ko bàyyi fa lañ ko suul sax. Hmm. waaw fa lañ ko suul. mooy man maa ñibbi si quoi man ñaari kër da ngay am ñaari kër quoi benn kër bi suul nañ ko Gabon ñibbi si naa enterrement bu rey hmm. ñëpp ñëwoon na zozo wiiri wiiri. Hmm. ndeysaan xam nga maa ko jàngal théâtre ñëw na ci man. waaw ah, ñëwoon na sax ba mu déggee mais après par la suite ba ma ñëwee ba tey déggantee guñu téléphone quoi mais xam naa su ma ko woowee dina tiit quoi loolu la. ah sa waa ji yow moom ay nga de ñaari ñaari double kër quoi. Ah. mais benn bi waroon na laa yóbbaale bàyyi la foofu. Sadio Mané. Hmm? ba tubaab bii di ñëw. Hmm. andi benn maa ngi taxaw. dégg naa jet privé lañ ko jël seen. jet privé. moromam yëpp waaw boobu ndaanaan la. kan sëñ bi xam nga lan la. da may dégg ñàkk nekk ndaanaan ma ne la Sadio du ndaanaan xam nga kan mooy ndaanaan. kan la bañ ñu gañee équipe bi toog. ñu ñëw aéroport ñu tàccu leen. yuuxu leen ñooñu ñooy ay ndaanaan ñooñu ñëw fii ñëw ba aéroport ñoo ñëwee ay ndaanaan match bi jeex nga jël suñu penalty yi dóor ko di mel ni mañankase buy dóor penalty yi loolu dóor la doo jël élan Kara Mbodj dóoram bi ñëpp xam nañ ne baaxul mais ful moom bu ko si limaa dama lay wax dóoram bi baaxul mais dama ne ful la la àndal dóor ko góolu bi jàpp dara ah Baye lu muy def day wóor suñu góolu bi mel ni la paalëb mais lan la jéem jéem naa la moom góol la waaye ban sens sens la gën sens ma ne la affaire yi moom ah. li yàlla yàlla lu mu lu mu lu mu dogal moom da koy nangu ah. temps yii Sénégalais loolu moo leen yàq quoi. ñoom waaw maa ngi gis maa ngi gis maa ngi gis pot xaw ma pot xaw ma. Hmm. duggal ay affaire si internet bi. di wax ak yenn joueurs équipe nationale ñeen ñenn ñi di ko tontu pot sénégalais am na droit équipe bi doxul. waaw waaw opinion la wax. opinion xam nga opinion am la wax. ñenn ñi di ko tontu naan ko. Hmm. yow jaay taar ga. xam nga man sax xam naa ne jaay taar la. Hmm. xam nga moom jaay taar la quoi. Hmm. mais yooyu jarul wax. mais loolu ça naa rien à voir ak wax. waaw loolu opinion loolu jikkoom la quoi mais moom lu mu wax si match bi. waaw loolu. match boo xamante ne ñëpp a ci wax. ñëpp a man man ba ma déggee mooy sama sama suñu kër kër gi si toog. muus yi après match bi ci guddi ba ñuy tëdd maa ngi leen di déglu mais damaa am lu ma metti nga xam ne Sénégal yi dafa gëm boppam. muus yi di wax lan waaw muus yi. di wax lan wax seen yaay di waxtaan. ñuy wax si match bi. li ñu wax waaye naan xam nga xam naa Sadio Mané moo raté penalty ñëpp ñëpp am na muus bu ndaw bi ndeysaan Sadio Mané lañ koy woowee daa jooy ndax lu turandoom raté penalty bi ñu naan xoolal lii ah est-ce que lii yoon la ah yooyu ay muusu Grand Yoff lañ ah ay muusu Grand Yoff lañ muusu Grand Yoff bi ay dañuy wax ah muusu Grand Yoff bi dañuy wax muusu Grand Yoff bi dañuy wax am na benn grand Mor Fall waaw ndeysaan gis nga grand Mor Fall grand Mor Fall ah magu Cheikh Fall day doon sama xarit ay mayo lay jaay quoi ak ay ay mayo mayo boo bëgg kooku kooku mooy jaay benn mayo huit cent mil benn mayo sa équipe nationale original. ah mayo do du não non non du xotteeku huit cent mille francs mu ngi mu ngi léegi mu ngi fii mu hmm. la dëkk. foofu la dëkk ah koy publicité waaw waaw waaw maa koy publicité xam nga sama waay la. am na pub bu leer na. ah am na pub bu leer yow rek ci publicité. ku bëgg maayo Mor Fall rek. yow rek bu ñu déggantee di ma woo. maayo dëkk boo xalaat am na ko. Hmm. ah dëkk boo xalaat am na ko entre parenthèse doguma la ah. Hmm. kii maanaam kii woowoon na ma numéro bi xamoo ko 77 76 non numéro bi moom xamul. non daf ma sonal. daf ma sonal. ah da lay woo sax waaye daf ma woo ne ma dafa am benn compétition bu am ma ne ko compétition bi la la mun ma compétition bi compétition la la ma wax ko nee na ma waaw compétition bi dañuy dox ci wàllum mythomane xaw ma sax luy mythomane mu ne. waaw Morodi. taxawal taxawal taxawal taxawal. yow loolu compétition boobu. waaw yow mii rek yaa ci war a def. waaw xam nga yow moom wóolu naa la. foofu moom wóolu non wóolu naa la. foofu ma ne. ci wet boobu compétition koy defee. mu ne ma grand xam nga xalifa. loolu kañ la ma xalifa moo ma jox sa numéro. Hmm. benn commission mito man ma. kañ la kañ la loolu wax ma rek. gars ma kañ la nee na ma fan yii mais balaa maa dem commission mito man xam mito man ba pare. naa jékki-jékki rek yóbbu sam boobu ñu rey ma. non yow boo demee foofu kumpa lay doon ba keroog ngay gagné. ah yow kumpa lay doon am nga ci man yaakaar déggoo li ma la wax yaw maa lay cautionné maa lay cautionné loo ci war a dox maa koy dox ndax xam naa ni moom maay jël ndam fii moom fi laa jaaree tekki. ay su may business bu ne dox naa ko waaye yow sa bos. a laa jaaree tekki yow bii moom fa laa jaar kalaare. su may dem compétition boobu. ba mu xooli ji Pape Moussa Ndiaye. non yow bul xooli kenn mu jox ma benn ensemble blazer ma sol ko sol kii torpedo xam nga damaa njool. Hmm. dama naaj de. dëgg la dëgg la xam nga yow xaw nga naay sax yaramu neen sax soo ko defoon da ngay gañ yow bu bu sax yow moom fi mu nekk Sénégal yaa fi ndaanaan waaw compétition bi moom loolu la yaramu neen sax boo ko defee da ngay gañ mais amoo ay pas mystique yu baax yow jarul mystique jarul mystique ah mi rek si mito jarul jarul mystique. yow kay maa lay yóbbu maa lay coiffé bu wala laa gàngoor gi. gaa yëpp dara bu bu egg nag mu nekk ay compétition deux roues. man dépassé naa laay xoolal nan la jox maayeg bi rek. yow nan la jox maayeg bi rek wóolu naa la. ah de wàllu maayeg la. laay yow sa xel dal. Sénégal yëpp lay dégg sa xel dal. wóolu naa la. ah maa ana fi saa si loo ne. gëj a gisee. ah yaay ju baax la. da nga ko xàmmee ah kii kii xam naa ko. ah du du yow. ah woykat boobu nekk Sorano du moom moom la. Ah. war naa la mu ngi naa du moom la. mën nga ko wax ni ko Demba nga tudd. ah ah daa fàtte turu Demba ah. bi. moom la yaa nekk Sorano. waa waa déjà an sama yaay Kiné Lam. doo woykat man de pour man yow la. ndeysaan moom la. Eh. waaye baat bi. baat bi day oto bu xottee dara mënu ko. mu romb fii ma koy kii rek mu naan. man la day moom est moom la. <laughs> ah yaa ko fi lu ma ci xam ay door la rek. Ah, ah. ay door la rek. yaa ko may fi mais gars yow dañuy dem concours mito bi. Ah. non tekki naa. waa léegi dama bëgg nga aal ma te fii laa war a dem du ma même pas balaa quinze du ma ñëw. damay dem waaw ci Mor Fall pour jëli ji mayoy quoi. kii bokkul ci wàllu mito de kii feebaru mito dawalu ko de. ah yee kii nii góor yàlla dëgg koy dawal kii bàyyi mito dawalu ko de. kii méthode dawalu ko boo bëggee daal yow comme sama gaayan nga te mënumaa tàqaliko yow boo bëggee mën naa laa yóbbu foo bëgg mën naa laa déposer sëñ Fallou mais lii nii waaw non doo ko dawal fanaa la ay bëggee Baye Fall mi def noonu yii nag moo wax la dara man yii dama ko daan Paris Dakar sama bos bi nii la xawoon men quoi sama bos bi may dem Paris Dakar nii la xawoon tel benn waay rek moo ma sonaloon Nouvelle-Zélande la dëkk moo ma raw mais jooy naa ko quinze jours man ne ko boo bis bu ñu dajawaatee doo ma raw boo ba léegi dama koo raw muy métti loolu ba dee. Mito kii sama domaine la de. ah kii sama domaine la li ma ci xam bëri na ne ndaanaan yëpp xam naa. loo li loo xam ci li pardon lii ni ñu koy démarré. non ñuy gars yi kii maa ko maa ko dawal indi ko fii. nan lañ koy démarré laa la wax. ah yow da nga may da da ngaa am beneen pexe bu dul ni ñu koy démarré. bii ba waaw. nan comme nan. man sama bopp commande moo ko doon démarré commande moo koy freiné. waaw ah, ñu def noonu ah. waaw ndaanaan nga waaw fanaane waay. waaw góor fasanaa waaw dama bëgg jaar bii dem xooli bii pot quoi. oui waaw baax na baax na yow kay bàyyi dafa waxoon foofu ma jaar fa xaaral ma jaar fa jéem ko xool. jox leen seen sûrement nag damay dem foofu ñu may leb ay moon yi. non dama rek jox leen seen dose. amul benn problème oui jaajëf Baye Fall. ñu def noonu ah. oui bëggee waaw nañ déggante ah. waaw waaw fa yàlla waaw. mais mais néeg bi nga lijjantil ma ko ah. waaw baax na baax na baax na oui jaajëf.